ma jëw ci sama bop pour nit ñi mën ko dégg bu baax dama dem kër Moustapha Diop wal fajiri comme mom Diop la sant ma dem fa fekk fa ñaari nak yendul ko dem Moustapha Diop ñëwaat ci kër gi fekku fi nak yi mu ne ah man de sama ñaari nak dem na te ñaari nak yi ma réerle muy sama àdduna xalaatuma ko muy jaral na ma lu ne na dëkk bi tàkk na sax lugaloo gépp tas waaye ñaari nag yi moom danaa ci jotaat ba mu ne ko waa ku jël ñaari nag yi mu ne fii daal Cheikh Bara Ndiaye moo fi yenu si woon te mau may dem moom laa fi bàyyi kon ñaari nag yi moom wóor na ma ne moo ko yeewi moo ko yóbbu ñu ne ah Cheikh Bara bëri nañu taalibe bari na ñu nekk ci Facebook bi di ko tuub di ko ak di ko di ko défendre bari na ñu ay YouTube bari na ay militant bari na ay ay ay ay ay ay ay ah waaw moom baa yow di nga mën a lijjanti nag yi ba jotaat ci mu ne dama ko yóbbu ci yoon bi mu demee ci yoon porte plainte na dañoo jël samay nag waaye di wa ko jël si te aw tur muy mën a siñ baara moo ñëw kër gi yewi na samay na ko justice bi mu dem man maa ëpp doole Moustapha Diop ndax sëriñ laa waaye nag Moustapha Diop man maa ko ëpp mais man justice moom ëpp doole justice jël ay matukaayam xeex rey quatorze nit ci samay nit fexe fexe fexe fexe ba jot ci man andi sàcc bi mu ñëw toog ci ban ñi dem jëli Moustapha Diop ne ko ka jëloon sa nag yi te mënoo koo muñ malgré que nag coow li bari na réew mi du Louga xawoon na tàkk ba def ñaaru ab doom waaye jàppal nañ la ko andil nañ la ko mi ngi ñuy toog mu daal di kontaan sol mbaseem bu xonq ànd ak xaritam daw dikk toog ndax doon na wër rek naa ay sama nag yi bu ma gisee ko ko sàcc ñi daal di toog ñi daal ne waa léegi sàcc bi waaye yow yaa sàcc nag yi sàcc bi ne ah man de du ma tontu ñun daal amul du may tontu ñu ne Moustapha Diop waaye yow ndax dañoo sàcc say nag nga ne ah comme nga sàcc bi nee na du tontu man de du ma tontu waa léegi nag man lii laa bëgg laaj ndax mas ngeen a gis lu mel nii est-ce que. waa ji réellement dañoo sàcc ay nagam loolu première la bu fekkee dañoo sàcc ay nagam est-ce que réellement moom ci boppam bëgg naa jotaat ci nag yi su fekkente ne ñaar ñaareel loolu mooy ñaareelu laaj bi est-ce que carrément waa ji dañ ak est-ce que bu dee sàcc nañ ko bëgg naa jotaat ci nag yi ak est-ce ñu rey quatorze nit pour jàppal ko sàccam indil ko ko ne ko nit ñi ñuy toog ñu fa fayati benn nit wala benn nit di jéggati jëriñam di dox di dem naan da koy jàppale jigéen ñi koy topp naan dañ koy jàppale wala góor ñi koy topp naan dañ koy jàppale wala xarit yi koy topp di ko jàppale wala mbokk yi nga xam ne ñu ngi xuloo di xeex di saagaante ngir waa ji mën a jotaat ci nag yi est-ce que ñooñu mérite waa jii kii moom càcc jii est-ce que mérite woo di toog kenn di toog naan dama lay jàppale parce que nag defe naan ne nag lu nit bu ñu sàccee say nag ñi jàppal la sàcc bi indil la ko laaj sàcc bi ne ko ndax yow da ngaa sàcc sàcc bi ne man de tontuwuma ñu ne borom nag yi ndax yow da sàcc ndax ndax dañoo sàcc say nag nga ne comme sàcc bi tontuwut man tontuwuma defe naa nag loolu nag moom lu nit dof dof dof dof yaakaar naa loolu moom nit dofaale wu ko tey bu fekkoon te am na benn dañoo sàcc ay nagam bu fekkoon réellement sàcc gi am na moom du déglu li sàcc bi wax waaye moom lu mu wax ba laaj boobu laa leen di laaj ba xam daal mas ngeen koo gis benn ak réellement est-ce que waa ji dañoo jël ay nagam ak réellement est-ce que bëgg ci nag yi ak est-ce que méritooti na nit di taxaw naan da koy jàppale wasalaam